doomu jeen waa màkk dàq ko mu dem làqatu ca doomu xiraa di xalaat ba yàlla moom ko ni ko xewoon léegi waaye nee na kenn mësta dégg mu ne yonte bi da ko daan fekk deseeg moom ñu waxtaan wala ñu diisoo bañ naa loolaa jaxale ci Muhammad mbaa boog ci moom la Muhammad jëlee xalaat boobu déedéet li àndal masalatu ngir naka masala mi laysat masala tax laysat déet moom masala tax ci baa ci fikratin muy mbirum tudd ak xalaat ndax nee na mbir mi kat diine muhammad ji yeesul rek fekk ko amee xalaat mu tibb ko ci moom def ko diine tal quran al quran maa la nga xam ne xawaahu làkk na ko min fasaaxatin ci rafet wa balaaxatin ak balaaxa xaarixat bi aji xot yu baax wa xikamin ak ay xikam baarixat yu aji dem dayo wa amsaalin ak ay léeb wala ay misaal muxkamatin yu duñ xereñe wa zikri axwaalil maadina ak tudd mbiri yooyu yooyu mu am biyaayin ci ay yonante wa umoomin ak xeet wa am baayil mustaqbali ak xibaari ëllëg mooy li ñëw ci kanam wa xalaaqatil insaani ak relation nit maanaam liy jàppale nit bi xaalixihi ci aji bindam wa xalaaqatihi ak relation nit bi xayrihi ci kubi moom wa tashrihi ak tëral luwa alxazimi chani bi aji màgg mbir allëf yi bi nga xam ne saara mujj na mawdooxa bax fil a'immati di mawdu hut gëstu kilifa yi al mujtahidina ñu di way mën a gëstu ñu way farlu ci gëstu wal xulama ak yoo xam ni al alaami ñu di ay xalam loolu laa yakun du nekk mastaruhu cosaanam ijtimaaha sayd ibni hamrin di taseek sayd ibni hamrin bi rasulillahi ci yante yàlla wi masa dafatam ci tombe fi xiraayin ci doobi xiraa aw fa tarix wala ci yoon neena mbirum mom xel na nguko bo setlu alquran ak bu ëmb ci rafetay ak ak xoti baax ak wax yu am njariñ ak ay tudd mbir ñëw ñëwoon ak ñu ñëw ci kanam ak li nga xam ne moom alquran leera leen nit ki li wara dox digënté ak borom ak li wara dox digënté ak borom nee na yëpp nga xam ne daa mujj leen ko am xam-xam diko ko gëstoo ko jëriñoo nee loolu ko nga xam ne ne bés ko ci rek yonent bi tase ku ñu wax Seydou Mouhamed ñu dem ba tombé ci dojoo rek mu tibb ko ci moom loolu ku ñu xam ne xel nangu ko su ma indee naa topp nag ñun fooy waxal daal ci kaw loolu lépp laa naa mu dañu xam min taarixi rasulillahi ci taarixu yonent yàlla bi li ànd xoo naka moom kaana nekkoon na yete zaakaru di discuter wala di fàttalikonte maxaar jaay ànd ak ay góor aw kaanu wala nekkoon nañu àlli moona xoo di ko jàngal min soxari ci li wala ci ndawam إلى أنصار جن جون نجي ما هي عند يونت بل آه الثابت أبو صحبة كيما أن أنا كيما قال نكون أميا نكون من تبان من تبند لا يدري دخان ما الكتابة لن يبند والقراءة الجان ولا دين بتاجين لي دين وأصوله أي كسان حتى أوهي بوه يوف إليه جنجوه li ñu xam ko yépp xam ko daanaka ci ñu ko moy ma yoonte ni ñu jàng ak bind ak tudd aw téere waxtaan ay nit ci diine woon mos ci doon borom ñu xam ci moom mooy mënta jàng mënta bind boo bindoo tur woon ko ñu ko am du bu sib téere mën koo jàng waaw tuma inna risalata nabi yi topp na kat yonente yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lam takku nekkut mahbubatan bi lu ñu limité ñu ummati ñeel xeet yi al arabiyati ko bi arab kama zanna ni mu jarte sel mister sel moomu وأمثاله أك إمرام بل لسنك كانت نكون رسالته يونن تمدي عامة دي أجمة لنيب بنفس القرآن كي هو القرآن قال تعالى سنبرم نينا وما أرسلناك من يملو إلا للناس نرجم تنيني كافة درمي بولشين بشير المرمي أجي بغل كبب كأجنا ونهيرا تأجي خبف كوابك سورة ولكن أكثر الناس وعينا يأتكنتني لا يعلمون بالخمس nee na lee docteur lee mister sel wax ne bi misaalati maxduudatin min ummatin arabia nee na loolu wute naa li am dëgg-dëgg moom loolu jarut xëy na mbaa loolu la mën a wax moom ñu ne moom waaye yonente bi yàlla yoon yonente bi dafa def ñëpp matala ñëpp te dala fu mu ko yónnee ba adduna tukki ak fay mën a nekk ci dégg woote boobu ci nga te suñ borom da ko wax ne wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nadiran walakin aktar annaasi laa ya'lamuuna wa ilayka jàppal nag tarjamata hayati sayd ibn hamrin carrière dunduk sayd ibn hamrin itmaaman ngir nettali lil ba fi ñeel gëstu googu nee na nag ibn hamr moom ñu waxaat la ci ay jaajaaram ndax gëstu boobu leer fi yow kon tarjamatu ibn hamrin carrière sayd ibn hamrin هو من سيد بن عمرو ابن نفيل ابن عبد الهزاع ابن ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك القرشي نكود القرشي الهدوي نكود الهدوي القرشي العدوي والد سعيد بن سيد مواجر سعيد بن سيد أحد الحشرة مكانك فكر بلد أجنة وابن حمي عمر بن الخطاب تبالي باي بندو بن الخطاب wa tamhu dana tassé huwa mom wa humar ak humar fi mafayl ci mafayl neena mom mi sayyid ibn amr ibn mafayl lañ ko wax wax lay maamum nak ba ci fihr ibn malik mu la kon mom wa quraish la ba nopi sax mo wajuru sayyid ibn sayyid sahid mom bokku na ci yonente bi wax seen dem aljana seeni bàyyi bokk nga xam ne su ila laajee fenn xan walis ko annabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa xaala mu ne yub na ko dekkal ummatan mi aw xeet wax dafa moom rek yoom xiyaamati gis penc dañoo laaj yonente bi mbirum sayid moomu nam farloo woon ci rek ci lépp luy xiram te seeni jaamu yàlla te xamul nañ koy jaamoo di ko jéem a jéem ba ca loola yonente bi ne kooku day bis bu ko yàlla dekkalee day taxaw taxawaayu xeetu mën mais jënd jëmam bi bu ko taxawalee Jangan moom muy taxaw taxawaayu xeetu lëm ndax ak farloom ci lu baax wa kaana nekkoon na yataabadu di jaamu fil jaahiliyati ci jamonoy jaahil ga wa yatlubu te muy sàkku diina ibrahima dina ibrahim alxalilu ni xaritub yalla. sallallahu alaihi wasallam. sallam wa yuwaxidu te muy wéetal allah yàlla taxala kawana wa yaqul te muy wax sama borom ilaahu Ibrahim mooy yalla ibrahim wa sama diine diinu ibrahim mooy diinu ibrahim aw neena na day naka jek dafa daan boru ci jamono jahil ga di jema xam yalla di ko jema topo ci diinu ibrahim mo de loolu diinu ibrahim loru ko bu ñu waxe mu ne man yalla ibrahim moy sama yalla diinu ibrahim moy sama diine wa kana ko na yaay bu di sikkel ala quraysin ci quraysh daba dabai xaram seen rendi wa yaqul te mu wax ne ashaatu gàtt bi xalaqaha bind na ko wa ansala te mu wàcceel laha ñeel ko ci asamaan ma andox wa ambata te mu saxalal laha ñeel ko ci suuf manam gàncax sama tegg ba xoon ha topp da ngeen ko rendi ala xëy Bismillah ci lu tur yalla taala in kara ngir weddi ni zalika ñalole wa in ak réel la xoo ñeel lool wax ne gatt bi yalla ko sak ndox mi muy naan ak ñax mi muy lek bu de ndox mi yalla ko wacc ci asman bu de ñax mi ñu lekk yàllaa ko saxal ci suuf ngeen di ko rendi ci tudd benn tur bokkatu yàlla xam ngeen loolu da jaaduwul loolu wax waxu rëy si wakaana nag kon laa yakul du lekk min maa la nga xam ne jubi xaren def na ko alal musubi ci xeram musub nag mooy al awsaan ay xeram wajtamaxate daje rasulullah te daje na rasulullah yonente bi yàlla alayhi wa sallam bi sayd ibni amrin ci sayd bi asfali baldax ci suuf baldax waaye ci ron baldax baldax nag nee waajin ci bala màkkata min jihatul xarbi aw xor la jàkkaarloo màkka ci walu sow qabla an yuha njëkk def wax yu ilahi jëm ci mom aw neena na yonte bi mas naa sayyidu muhammadin ci foofu ak tafa rek la noonu te do wax qabla an yuha ilahi njëkk def wax yu ilahi jëm maanaam boobu yonente bi nekkul ab yonente wa kana nekkon na mom sayyidu yuux di dakal al maudata oodata kañu solta dekkal kum sant jëfër mooy xam nga ne bëgg si faatu baagal mënu koo dekkal waaye day fekk ki am doom bëgg koo suul mu ne ko te am na jox ma yaral la ko te yow nga bañ koo suul ci ko loo xam ne ko ci gannaaw noonu ko noonu la ko daan defee kii bàyyam na rasul muy jigéen joo xam ne am njegemaar lay loon bàyyam na kasum pax di ko tuddee di suul muy seen loolu nga ko daan def ñu wax al mawooda wa itam ma su ilat bi ay zambin qutilat وعن زيد بن حارثة جل منجي زيد بن حارثة قال من قرأت جمعنا مع رسول الله أن يوانت يالبي صلى الله عليه وسلم يوما كبس حارم بأجتانك من أيام مكة كي فني مكة وهو تما مرد في أجتانك لما فلقنا تنتسك سيد بن عمر ابن نفيل سيد بن عمر مملح فحياته كل واحد كان كن من ناجم صاحبه مرون فخالت وخ النبي صلى الله عليه وسلم wasallam ko yaa sayd yow sayd maali ana la tax man araad naa la danaa gis xaw ma ko sa nit ñi xat chanafoo ñi bañ lakka ñeel la xaala mu ne ko wallahi dinaat yàlla yaa muhammad yow muhammad inna zalika naka loolee li xayri naa ilati tiratin ñeel na lu amut deret luy ñeel ma fiim ci ñoom walakin waaye xaratu genn naa rek ab taxaw di sàkku awe diine jële diine xata aqdama ba mu dikk ala axbaari xaybara ci fooy xaybar fa wajattuhum ma fekk leen yaabuduna ya ñuy jaamu allah yàlla ya wa yusrikuuna te ñuy bokkaale bi ak yàlla fa qultu ma ne leen maa xaaju diinu déj la diine allisi mooy gi nga xam ne ab taxi doon naa ko sàkku maanaam jële nañ ci saydu ibnu xaarisa mu ne mas na maa génn ànd yonente bi ci bis bu tàng yonente bi dama togg sax boobu mooy daa war teg ma ci gannaawam waral ma ci gannaawam yu taseeg Sayd ibn Amr ñu nuyoo yonente bi ne Sayd na maa gis sa nit ñi bañ la waxam ne léegi ne dañ koo bañoon ba génne woon koo màkk mu dem beru ca dañu woowee fa la doon xalaat ak gëstu mbirum yàlla ba farfaatoo ñu dañu woon yonente bi ne ko damaa gis sa nit ñi bañ la mu ne ko ah di damaa raw ci ñoom kenn mbaa damaa def ci ñoom lu tax ñu bañ ma de damaa génnoon daal di wuti diina ju wér ba ma demee ba ci yëfër yi nekk ci xaybar ma fekk la ñu ne yàlla lañu jaamu waaye seen luñ jaamu ko dañ boole leneen ma man day seen diine ji bokkut ak yooyu dina yàlla yi kese lay wut loolu lañ ma bañale fa xaritu ma génn xaalati fa xaalati wax li ñu yenn seexul ak góor mu ñoom ñu innaka naka yow la tas alu da a laaj xan diine walis diine joo xam ne a lu mu xam ahadan kenn yaa abudu muy jaamu allah yàlla bi ci moom illaa cheikhan bari ak góor bul xiirati bu nekk ci xiira xaala nee na fa xaritu ma génn xataa ak dama ba ma dikk alihi ci moom fala mara aani ba ma gisee xaala mu ne ma min man anta yow ana foo bàyyi ko xultu ma ne ko ana man min ahli baytillahi maa ngi bokk ci ñooñ néegub yàlla ba min ahli shawki ci ñooñ dëgg ya wal xarandi ak xarand xarand boobu nag mel neen des na ko wax nen nab ndax boo dee xool fañ koy seete dañuy wax ne waraqu salami yudbaxu bi xobi salam lay doon yoo xam dañ koy defare der yi mooy dañ koy dañ koy sibije der yi loolu nag xam naa moo taxoole fi di ko tudde nenn ndax nenn bu dee fii dañ koy defaree der xaala mu ne ma indil la fii ki nga xam ne tat mu dang ko sàkku xat baxara feeñ na bu bilaa di ko ci sa réew xat baxu fa yónneef na nag ak yonante xat talaxa boo xam ne fekk na majmuhu bu joom wa jami'uhum te mbolam ñi nga xam ra'aytahum gis nga leen fi dalali nek nañ ci jangute qala neena falam uhissatu yaguma bi shay'in ci dara aad ho wax ne sayid neena ak góor dama ne yow day diine ji nga xam ne moom nga wut diine xam rek jaamu bañ rax dara xam ci ku sayit neena ma dal dem ba ca moom ba ma gisee góor ga ne waaw yow mu fa bàyyi ko mu ne ko man maa nga bàyyi ko ci nit ñi ci kaaba ga maa nga bàyyi ko ci néegu yàlla ba ci kaaba ga mais mu ne ma yow de xam naa li nga wut waaye li nga wut da nga koo bàyyi sa gannaaw ne feeñ na ci sa gannaaw mbaa doon mi ngi bëgg a feeñ ci sa gannaaw waaye soo doo dëkk de mboolem ñu ma gis de mën naa doon nu jëm yu xamun mboolem ñi nga xam ne ra ay tuxum gis naa leen waaw mboolem ñu nga gis ñëpp de ci càngute lay nekk li ngay wër nag dala li ngay wër nag lay ci sa dëkk ba nga bàyyi ko lay benn te fisagut mbaa mi ngi waaj a feeñ waaye lay qaala ibnu xaarifata ibnu xaarifata nee na wa maata faatu na nabi ci sallallahu alayhi wa فقال توخ النبي ينتبه في سيد جسيد لإنه هناك مام يبحث دفن قدك اليوم القيامة جيس بينج أمة لأو خيط خيط لم وحده ممرك يعني يالي دفن هناك سيد محمد جير تجد ينتبه وبك في الإسلام بيرير وعيرك ينتبه fegna yalla yoni ko bañ ko laaje birum sey da wax ni mom day ko reyna fa yalla bo la be bu ko yalla dekkale jenn joom ngi lay taxaw taxaway xetulum وقال وخنا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق يذكر بهم دنا فاتلكو ولا دنا اجتماعها أكتسيم بسيد بن عمرو سيد بن عمرو أبو بكر مسني نتلي أكتسيم سيد مومله من كنت نكون جالسا دي أجتوب بفناء الكعبة تشأت الكعبة وكان نكون سيد بن عمرو ابن نفيل سيد بن عمر مومن قاهدا دي أجي جاكي مومت فمرت رب به كمام أمية أمية بن أبي سلط ki ñuy wax umaya moom le fa xaalal mu ne ko kay fa asbaxta naka nga xëye yaa baax yow xayru yow ajiwit ji lu baax xaalal mu ne ko bi xayrun ci jàmm rek ci yow yow xaalal mu ne ko xaloo jot ndax am nga li ngay wut xaalal mu ne ko laa déedéet wala aalu waaye gàttan loolu ma mun talabin cib sàkku xaala umayatu ne ko kalu diine jëpp diine yow mu xiyaamati ci bis penc illaa ma ndara li nga xam ne xadaa atte na ko allahu yàlla baat bi ci topp na xaw ma dadi wal xanifiyata ak diine ju sell ja ko defee wal xanifiyata nekk ataf ci maami wala waaw gi de waaw ngiñ muy wal xanifiyati giñ naa ci diine ju sell ji door ca teg nag ni buurum way alku lañu dafa day wane rek ne diine yàlla ji rek mooy diine diine ji tuuti rek ba bis penc du am njariñ abubakar nee na daa am bis ma toog ni ci ëttub kaaba gi sayid am hamrin toog ne ku ñu wax umayya ibnu abu salt daldi ne xamar yow yow yow mi wut lu baax noo def ne ko sant maa ngi ci jàmm ne ko ndax am nga lu baax li mu ne ko déedéet waaye maa ngi ko wut ba tey de mu ne ko utal bu baax diine ju mën doon du diine jooju rek ba bis penc doon dara ama yëgal ne inna haza nabiya naka bi la yonante ëllu fii bi nga xam ne wante bi def na ko séntu min naa day bokk ci ñun aw min ku wala mu bokk ci yéen aw min ahli Palestine wala mu bokk ci ñun Palestine waaw nee na yàlla ama wax loolu Usayd ne ko yonent yi ñu séntu benn bu bokk ci mbaa ci yéen mbaa ci waa Palestine xaala mu ne wala mu ëpp nekkuma woon sami ëpp bi dégg min qabli zalika ci ci benante yéen tëbëru boobu def na ko séntu aw yëpp xasu mbaa def ko wéññi hmm, maanaam Abu Bakar moo wax ne man yooyu jamono mosuma dégg ñu naa ak yonent ñu ngi koy ko yónni fa xaritu ma génn uridu namm war a xatab ni nawfal war a xatab ni nawfal وكان نكون كثيرا نظر الأجبر قال في السماء في السماء كثيرا هم همة الصدر الأجبر نيرم كدن نيرم فاستوقفت يوم تعالوك ثم قصصت منت لحاله جمم الحديثة وقتان أولي أنا أولي كدا وحن بيدي بليدا ونعر يوحن تكو تكتل مددنا أولي أولي فاين بألكو نرو فاكنا خمناني ورخة من كان كتيري لنلقى حيوان يخوي كتيري نفراني nee na fa sama daal di génn seeti waraxa ah gis naa ne ku bari seetantal la nii ci téere ak di xool asamaan ak mel ni am na mu yoroon ci dënnam nee na taxawloo ko nett li ko ñaari gaay yoo xamante sayit ak umaya fa xaala mu ne naam waaw na ax yow sama doomu mbokk aba wal xam ni illaa anna haada nabiya ndara naka bi la yonente allafi bi nga xam ne yonte def na ko séentu min awsatul harabi day bokk ci gën jaa digg doomi arab yi nasabuñ ci askan te waliyu te ñeel na mu xilmul aqam bi nasabi ci askan wa xaw ma ko tasaw nit awsatul xarabi ñoo gën jaa diggu arab yi nasabuñ ci askan abubakar ne bi ma waxee loolu waraxa dañu waaw noonu ñu ko waxee la mboolem ñi jàng téere yi ak waram xam-xam ci ne dina te ci lay askan mu tekki ne ba mën na xam naa askanu arab yi bu baax waaye xam naa ne kii feeñ ci yow mi lay bokkal mooy yéen a bokk askan waaw Abubakar ne ko yéen ñi xam naa ne seen askan bi gën a baax te ci lay bokk Abubakar ne xul dama ne ko yaa xam yow saa baay bu ndaw wa maa yaqul ana lan lay wax annabi yonente bi su feeñee xaala mu ne ko yaqul day wax maa loo xam ne xëy na waxees na ko loxo ñeel ko ay maa la nga xam ne yuuxaa def na ko waxi léegi jëme ci moom ila illa annahu ndara nak mom la dama jotu togn wala tazaluma bu ci tognante toñante abou bakkar ne ne ko waaw bu feñe lu ñu wax mu ne ko mom day bu baawa dañ ko wax lu muy netti bu jot lañ ko wax ñu waye xamna lu muy wax dina ci bokk mom nañ bayyi toñal nañ bayyi togn ko bayyi tognante moy nañ bayyi toñ ak toñar bi nañ bayyi toñ ak toñar bi falamma bihi sabayyana fi annabi yonante sallallahu alayhi wasallam Abubakar ne amantu gëm naa wa saddaqtu te ma dëggal Abubakar nee na tax bu yonent bi feeñee ma waxoon ma daal di sa waxan asma jël ci asma binti abi bakar ñu doomi bakar xaalat mu ne laqad ra'aytu gisoon naa saydat na xamrit mu nufayl saydat na xamrit mu nufayl musnidam muy aji wóor jahrahu gannaawam ilal kaabati jëm ci kaaba gi yaqul di wax ومشي جنة كي خمني نفس سيد بكنا بسيد بيده نكنا كي لهم تسيد ميمون ما أصبح خيط منكم شيئا أهد كان على دين إبراهيم كي دين إبراهيم خيركم ميمون أسمانينا أسماء دوني أبو بكر الله نينا مسلم أجيس سيد ابن همرو بيور ميقناهم كي كابا بي دوا دوخنا يون والدون قريش واتنا كي على نمان بانغ ما كي دين إبراهيم يكن نكو دين إبراهيم wa kaana nekkoon yaqul di wax ni allahuma ya buur bi law an ñu doonte nekk man alamu dana xam ahabal wujuhi gën jaa soppi anam yi ilayka jëme ci yow xawattuka ma jaamoo la bii ci moom walakin ñu waaye man laa alamu woo duma ko xam suma yasjud topp dana sujjoot xalaa raxati ci tenqam neen daan wax ne yàlla su ma xamoon anam nga ma gën a dégg koo ko ci tenqam waxaala wax na ibnu isaaq ibnu isaaq nee na xaddasani net ni na ma bax du aali saydin lenn ci ñoom sayid mu ne kaana nekkoon na is daxala bu duggee alkaabata kaaba bi xaala mu la béyka wuyu naa la ci gannaaw wuyu xaqan ci dëgg xaqan ci dëgg taxab bu doon ngir jaamu wa riqam ak ngirub jaamu nga xam ne xaaju wóoru woon na bii ibrahim ibrahim ibnu saq neena ñenn ci ñu bok ci waq sayyid sayid neena ñu suma sa dugg ya, ak lay ya, wax day ya, wax labbayka sun borom ñu lay wax labbayka dëgg deug wax defu keneen deug doon sa jam di wër te ma ngi lay ibrahim ibrahima wëroon fu ko te wax waxu te moom qaayimun aju taxawla nako an fi sama bakkan xaanin ku ñu jàpp la la ka ñel la rahimun ta ju torox la mahma mahma ta jashim ni sa yo ma fa inni nak man ja ka man ja shim ju togo la ju def la lola al birra ak bax abdu saku lal mala du Wahal wa hal muhajir ndax aji ngelor lu ka man dana melni ko xamni xala ya yendo na ne law hmm ne ne ne ni ngi sa don ci ka sama bakkan bi jox la ko loo ma digal ma def ko lu baax laay wutuma alal wa kaana nekkoon na alxataab ibnu nufayl alxataab xat aazaayu lor sayd ibnu amr ibnu nufayl sayd ibnu amr ibnu nufayl ba mu génn ilaa axlaa màkkati jëm ci gën jaa kawe fa nafal te mu wàcc xiraa xiraa muqaabila màkka fa jàkkaarloo màkka wa wakkala te délégué bi ci moom الخطاب خطاب شباب وخماني من شباب قريش وخماني قريش وصفها وصفها أبو الدسيدي من صفائهم كي شنو الدسيدي فلا يتركونه بنك بايدو يدخلون بنك ماكة ماكة وكان نكون لا يدخلها بنك بنك إلا شر درج الله قدمه كيوم فإذا علموا ديم خمنا به كمان آذنا يغل به كمان القطاب قطاب فأخرجوه te ñu génne ko wa aadawhu te ñu lor ko ngir bañ mu yàq alayhim ci ñoom diinahum seen diine wa an yutaabiahu ak bañ mu topp ko ahadun kenn minhum ci ñoom xalaa firaaqihim ci kaw tàggoo moom mooy bàyyi Omar waaw alxataab ñu muy wax mooy bàyyi Omar alxataab moom doomu Nufaylu la te xam nga Seydou mi nee nga Nufaylu mooy maamam ndax Seydou Seydou mu xamoon la xaaru naa la nusaloo ko jur waaw gis nga xattaab mais kon ni mu ak sayit waaye nga xam ne kon mel na ne xattaab bàyyi bu ndaw la ci sayit ndax sayit xamee ko jur xamar nusaloo ko jur xattaab itam nusaloo ko kon bàyyi bu ndaw la waaye neen da ko bañoon ba xam ne ni ko daan lore doy na waar daa mujj bàyyi bu ndaw boobu di ko sayit daa génn màkka dem ci dafa woon wax waaye bàyyi ma ndaw boobu daa ay waxambaane ci xoreysin ak bàyyi bu la bañ ne leen loolu na ko seet bu mu dugg mukk màkka nga xam ne sayid balaa dugg màkka day làqu waaye te buñ ko yëgee ñoom ñooñu mu délégué buñ ko yëgee dañ yóbbu ko xattaab bàyyi ma ndaw bi ne ko dugg na fi daal taxaw te mu ci génne ko la tax ñu doon defee tam mooy dañ ne moom ndegam day sikka suñu diine ji ne ni ci diine Ibrahima lay nekk buñ ko bàyyi day yàq suñu waxambaane yi buñ ko bàyyi day yàq suñu yàq suñu gone yi wal mo bay mu ndaw bobu don ko genn mo ko wa maka wa ya fatif na sayyidum sayyid qabla mabhatin nabi ci ñepp yoon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ta hu marsial ko warqatu nawfal warqatu nawfal ñene sayyid bu mu faatu ba yonent bi yone wuñ ko feñagut waye warqatu mom nga xamni jangal na téré ta xam diini jeur joy nako ci ay way tag nako ci way dana mu faato ne rafet jub ngam xel wa an hamta te nga jàng te nga jàngal sab seet ibn xamri ñoo doon xamar mu sayd ibn xamri wa inna ma tajannabta naka moytu nga rek tan noram ak ferme xaamiyan bi aji tang mën naari ci sawara naka yo day jup nga xalaat fexe nga ba jéemoo diini yi nga xam moy diini wa waa màkk yi muy te nga xam sawara rek la yego yow day fexe nga ba moytu ferme sawara bu tang tàng moy moytu nga yego sawara bi diini ka ci sa top rabban abdur boo xam ne lay sarab bandeet benn boo kamis li ñu mel ni moom watarkee ak sag bàyyi awtaana tabaax yi xërëm yi way doy kamaax yi naka moom nga bàyyi xërëm yi bañ koo laal te topp yàlla kese waxat yi bukk baraana bu jotee al insaanu nit rahmata rabbihi yërmaande borom walaw kaana ak doonte nekkoon na taxatul ardu ci loolu suuf sikki na ci juróom benn fukk waa diyan ci xur ko nit day lum sori sori ñu ko soolee ci biir ak fu loolu xóot xóot yermane yalla mën ko fa fekk yow nak mu balu borom wut ba li fekk la ci yalla la yermane yalla fekk ko na la ci fekk rek wa kana wakaane nekkoon yàqul bi wax ni ya ma achara yum yéen mboolum ya ko wattu leen seen bopp war ya gisal fa innahu naka moom yori su day al faqra al yak ne dana wax loolu waa quraychin هذه لي ترجمة سيد بن عمرو moy carrière سيد بن عمرو وهو mom ba اعتناقه andako topam diina ibrahima diina ibrahim xaraban ngir daw minul watan wet ci diina xiram lam yakun nekkutoon yaalamu di xam ahabal wujuhi gën jaa soppi anami ilallahi jëm ci yàlla taxalaa kawena lii abadahoo ngir mu jaamoo ko bihi ci moom wala mu yadkur te mësta tudd ne annahu naka moom ijtamaha tase na bi rasulillahi ci nantu yàlla wi mu xayra maratin bare yenn yoon mën naa nekk wala mu yadkar te tuddee fut ne annahu naka moom ijtamaha wala bi abi bakar du ci ajee ci abi bakar mu xayral maratin bare yoon wa allati nga xam ne dëkkal naa tudd nañ ko nee na gis nga ne Seydou ibn Amr moomu kaanoon sel bu gën a wax ne daanaka ci moom la yonente bi ku yàlla wax yu da ko wax xalaat rek jële ci Seyd nee na nga ne Seyd moom nee na man moo xamoon anam gi gën a taamu ma jaamoo ci waaye daa koo xamut kooku mu ñuy joxe kon lu xamul nu koy joxe te ni la ko waxee nee na benn képp lañ ma sa nett li mu def sa yonente ñu benn yoon boobee benn yoon boobee mu ci jëlee ci moom diine jëmu tasaare ak alxuraan ni mel tabb ul waxyi tablik waxyu bi saadisa oxastos sanata sittimiatin wa hashra miladiya ena bi yàlla tàmbalee waxi yonante bi ñu tàmbalee ci juróom benn fan ci weeru août ci atum 610 dana xewax sanata hashrin wa sittimia ونحو سنة ستمائة وعشرة ميلادية kon jappal ne juroom jangan fan ci yoru ut ci atum 610 ci la waxee gi tàmbale wàcc ci yonante bi lama xarabat ba jege ayaamul wax yi fan yi wax yi ba xubb ba sopp loof na ilayhi jëm ci sallallahu alayhi wa sallam alxalootu weet fa di wa yataxabbadu te muy jaamu fii ci a ak layaali guddi ya zawaatil xadadi ya di waroomu lim su ma erjeema topp dana dellu ilaa ahlihi jëm ci yoyam fa yatazawwadu te mu yóbbulu li misliha ñeel seenum kem nee na bi nga xamee ne yàlla nga koy wax bëgg waxiw xiir ci wéet moo tax mu daa dem ca xunti moom ñu wax xuntim xiraa di ca wéet daana fa nekk ay guddi guddi ak seeni bëccëg nga xam ne balaa dem di wutub yóbbal ngir mën faa nekk ay fani fan bu amee fan del siwaat delluwaajaat delluwaataat wa kaanat nekkoon na xibaadatuhu jaamum nga xalaa diini ci diine ibrahim alayhi salaam waxi waxees na ne kaana nekkoon na yataxabadu di jaamu ilhaaman ci yankiwal minallaahi bu tukkee ci yàlla am nañu diine ibrahim la doon jaamu foofu nu ko xam nga doon benn Ibrahima wér